Elimane mm. Diouf ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. Elisabeth ñu ngi leen di nuyu di nuyu seeni auditeur di rafetlu invitation. Mm-hmm. ngay secretaire général euh, confédération des syndicats autonomes. du oh, Sénégal euh, mm. ñi fas yéene dox doxu ñaxtu euh, le trente maanaam dina tombeek suba muy le 30 ngeen fas yéene ñaxtu dundu gu métti gi ak it li nga xam ne mooy aar liggéeykat yi seen liggéey wayit seen dignité ndax seen doxu ñaxtu bi ba tey dina am. mais ba tey jii en tout cas ñun jàpp nañ ne dina am parce que li ñu waroon def mooy def déclaration de marche déposé ko auprès du préfet def nañ ko euh, semaine passée comme ni ñu ko waxee woon. Mm-hmm. Euh, camarade plénipotentiaire yi nga xam ne ñooñu représenté ci déclaration de marche boobu aussi euh, autorités yi police bi ñu déjee déclaration bi antane na leen dem. Mhm. et yaakaar nañ ne vraiment ci liñ fa jëlee ak déclaration de marche pacifique bi ñu def. Euh, yaakaar nañ ne dinañ am réponse favorable tey ou plus tard ma am li nga xam ne lim naa ko sànq euh, mu bokkoon ci seen waxtaan ba ngeen di jàkkaarloog taskatu xibaar yi ne moo leen di wàcce ndax dafa am leneen euh, lu ci tegu lu waral liggéeykat yi gis ne jot na ñu wàcce ci mbedd mi. mais yaakaar naa ne ñun li wax leer na hmm. yaakaar naa ne toog nañ at ak lu teg yoo xam ne. Euh, addu nañ d'une manière pacifique euh, d'une manière euh, yokk en tout cas yëglu nañ ci kanamu autorité yi mhm. toog nañ ak ñoom waxtaan ci wàllu jafe-jafu liggéey bi ci wàllu ni pandémie bi maanaam covid 19 nim nasaxale liggéey ci suñu réew surtout ci yenn secteur d'activité yi bokk nañ ci xalaat ak gouvernement bi même ak président de la république bañ tëraloon ay mesures ba mettre en place benn fonds buñ ñu tuddee woon fonds force covid 19 mais gis nañ ne mesures yooyu yëpp yi nga xam ne mettre nañ ko en œuvre terewul ak guddaayu euh, pandémie bi mm-hmm. ak euh, première deuxième ba troisième vague bi ñu nekk ni mesures yooyu permettre vraiment ñu euh, gis le bout du maanaam que lépp loo xam ne yaakaaroon nañ ko fànq ci wàllu liggéey bi ci yenn secteurs yi lépp loo xam ne waroon nañ ko saafara ci wàllu njëg yi tey dafa gën mel ni affaire bi dafa gën a tar parce que partout nee nañ au plan international fi ñuy jëndee ñun yenn produits importés yi euh, taxes yi dafa yokku euh, coût transport bi dafa yokku fret bi dafa yokku et que gouvernement bi fi mu nekk nii euh, benn solution rek la am mooy fexe ba yokk tuuti njëg yi et yokku njëg yi nag fi mu nekk nii commencé nañ sentir ne lu metti la bien que bi biñ ko annoncé gouvernement bi jël na ay mesures yu bees yoo xam ne am na prime ci jot a wàññi mm-hmm. te prix yooyu yaakaar naa ne de prix yooyu rek lañ soxla woon ñu wàññi ko euh, suukar diwlin ak euh, ceeb du lool rek la nit ñi soxla ci dund du lool rek mooy euh, pouvoir d'achat wu liggéey mooy wàññi pouvoir d'achat wu liggéeykat yi donc foofu gis nañ ci ay mesures yuñ jël mais même ci application bi ci terrain bi des na bu baax a baax a baax parce que gouvernement bi amul moyen wu faire appliquer maanaam njëg yi mu imposer amul moyen yoo xam ne dina suivre Euh, euh, pour ñu appliquer ko ñu jàpp aussi ne ci biir loolu mhm. euh, vraiment ka yi patient nañ maanaam taaxirlu nañ mhm. waxtaan nañ jël nañ seen kéemtulaay kàttan pour ànd ci xeexu mbas mi ànd ci mesures yi nga xam ne gouvernement bi mu ngi doon jël. Mhm. mais dañu toll ci situation boo xam ne ñëpp a sonn yaakaar naa ne loolu moo tax vraiment moment bi favorable pour ñu yëkkati. Euh, suñu kàddu yëkkati suñu ay fësal suñu ay revendication pour que gouvernement bi jël ci euh, ay mesures ñu xool aussi nan la ñuy def ba euh, ñu jóge ci pandémie bi mhm. relancer suñu économie ba entreprise yi nga xam ne dañu tëddoon ñu yëkkatiwaat tey jii ndax am ngeen xayma ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule gën a yàqule sax laa mën a wax ci mbas mi ci liggéeykat yi waaye xayma biñ ci defoon ci rapport bi nga xam ne ci tolloog at euh, ministère du travail defoon na ko. Mhm. mooy euh, lu toll ci ay junniy junniy liggéeykat ñàkkoon nañ seen liggéey maanaam ñàkk liggéey bi ci entreprise bu tëj ou bien ñàkk liggéey bi ci wàllu entreprise boo xam ne dafa arrêté activité ci wàllu hôtellerie ci wàllu restauration. Mhm. ci wàllu transport aérien parce que entreprise yooyu mënatuñu woon fay ay liggéeykat. quelque que soit mesure yoo ji gouvernement bi jëloon yëpp pour accompagne tere woon terewuloon yenn entreprise yi mënatuñu woon dem mhm. donc ci kaw loolu euh, ñun suñu centrale bokkoon nañ ci ñi accompagner woon processus ba ba ñu mettre même en place benn euh, euh, pacte sociale boo xam ne day permettre secteur hôtellerie restauration et transport aérien mettre en place ay mesures yoo xam ne gouvernement dafay jàppale chef d'entreprise yi pour ñu mm-hmm. relancer secteur boobu mm-hmm. mais boobu ko signé ba léegi sentiruñu en tout cas euh, que secteur boobu mu relancer wu parce que effectivement dafa tombé waat ak troisième vague et aujourd'hui euh, relance boobu fi mu nekk ba léegi euh, ñu ngi koy xaar et yaakaar nañ ne vraiment moment bii nag jot na ñu gën a taxaw pour que loolu mën taxaw au niveau de secteurs ci yeneen domaines yi muy ci wàllu njëg yi ci wàllu yeneen euh, secteur d'activité yi mhm. euh, ñu fexe ba état bi accord yi muy am ak yenn secteur d'activité yi muy éducation muy santé muy yeneen secteurs yi muy agriculture parce que fan yi rek amoon nañu ay yëngu foofu que mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ba am accord ak secteurs yooyu ñu mettre ko en application yooyu yëpp nekk na ay jéego yoo xam ne vraiment tax na ñu jóg ñu ne nañ taxaw pour que ñu euh, yëgal gouvernement bi ne liggéeykat yi bëgg nañ mettre en œuvre ay accord yoo xam ne vraiment yàgg nañu fi te jaarul fi mu war a jaar. ndax ñoom yëglu nañu ba ngeen euh, waxee ne ba tey di ngeen dox doxu ñaxtu boobu ba tey. dégg ngeen leen waaw je pense que euh, leen parce que xëy na calendrier bi ñu nekk ñun ñëpp dafa xaw a xat. parce mhm. xam nga dañ jóge ci conférence bi. màggalu Touba presque def événement la boo xam ne day day mobiliser toute la république mobiliser population yi. Mhm. mais comme reprendre nañ tey yaakaar nañ ne tey ak euh, fii ak marche bi bu ñu woowee dinañ toog. Mhm. bu ñu woowul tamit dinañ continuer suñu ay ñaxtu. dinañ woot bu continuer waxtaan xool ban plan d'action global boo xam ne <coughs> dina <coughs> permettre population yi ak travailleurs yi ñu continuer xeex boobu pour que ñu jël leen seen préoccupation en considération Mhm. monsieur Diouf euh, seetlu nañ ne jamono ji ñun ñoo ngi waajal ay élections Sénégal locale yi donte duggaguñ ci euh, sumbaguñ ko bu baax a baax mais baaxoo gis nañ Sénégal ne saa buñ koy waajal lii di euh, environnement sociale bi dafay yëngu dafay bëri ay yëngu-yëngu ndax li ni mel mën nañu jàngat ne li élections yi di waaj moo taxit ñuy dégg travailleurs yi. waaw yaakaar naa ne loolu vraiment boo xamul ku xamul euh, syndicat mooy xalaate noonu mm-hmm. mais ñun centrale syndicale bi ñuy jiite muy confédération de syndicats autonomes mm-hmm. euh, vraiment def nañ différence bu baax suñu rôle ñun syndicat ak rôle politique yi mm-hmm. naam yéen syndicat yéen euh, médias yi li ngeen di gën a fësal mooy politique mm-hmm. li ngeen di gën a fësal mooy yëngu-yëngu politique mm-hmm. mais xam ngeen ne yëngu-yëngu politique yooyu du loolu mooy def am defar am réew mm-hmm. xëy na ëpp ngeen ñu doole yéen ak politique yi ba actualité bi yëpp loolu ngeen koy jaga jagleel boo xoolee journaux yi tey journaux écrits yi ou journaux euh, télé yeeg rajo yi li ci ëpp pàcc bi politique la alors que réew mi dafa soxla ñu saytu Euh, secteur économique euh, loolu moo tax may wone ne euh, emprise politique ci suñu ay activité en tout cas ñun dañuy def la différence élection yi élection locale la muy soxal gox yee goxaat vraiment bokkul dara dara ak ñun suñu plan ak suñu programme ñun météo revendication liggéeykat yi la ñuy xool ci kaw météo boobu nag dafa jot ñu wax ci jafe-jafe yi nekk ci pouvoir d'achat wax ci jafe-jafe yi liggéeykat yi am ci respect code du travail respect législation respect wu dynamique bi nga xam ne ci lañ nekk boo xam ne relance économique bi dafa waroon permettre secteurs yi nga xam ne dañuy presque suuxoon ñu yëkkatiwaat leen loolu mooy suñu agenda mais pas agenda wu élection locale ou élection politique ngeen tàmbali comme ni nga ko waxee agenda euh, mu doon benn plan d'action ndax mën nañoo xaaranti Euh, ci fan yi ñuy gën a euh, ni ñuy gën a xuusee ci bés waaw comme ni ma ko waxee léegi euh, yaakaar nañ ne marche bi dañ ci woo centrale syndicale yëpp coalition yi regroupé ay centrale yëpp coalition yi regroupé ay syndicat muy secteur bu nekk muy secteur u santé muy secteur u éducation ñëpp lañu convier ci marche bi woo nañ même association de consommation euh, association consumériste yi maanaam ñi yëngatu ci wàllu consommation pour que mu nekk vraiment lansement wu benn vaste mouvement boo xam ne day permettre ñu jël en compte l'ensemble des préoccupations maanaam euh, wàllu njëkki wàllu liggéey wàllu euh, nan la ñuy def ba relance économique permettre secteur yëpp ñu dox yaakaar naa ne loolu Euh, bii démarrage la rek euh, concertation yi sumb dinañu permettre maintenant ñu xool nan la ñuy fédéré ñi lool moo tax ma ne lii euh, tàmbali la mais nekkul vraiment la fin d'un processus tàmbali processus mm-hmm. marche bi moom ban itinéraire la fas yéene jël waaw marche bi ñu ngi jàpp ne effectivement le trente lay doon à partir de quinze heures place de l'Obélisque mooy actuelle place de la nation à partir de quinze jëm Euh, rond point RTS. Mhm. monsieur Diouf Souleymane Diouf ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen ci invité yéen ci marche bi bu baax a baax. incha allah dinañ wuyu si ñu ngi remercier